na benn xale bu jàngoon fi suuratu Ibrahim mu ñëw ci xabiisati nuju tussat mu taxaw ci xabiisa bi mu commencé waat hamza bi kasra mu ne ijji tussat temps boobu ñun mënoon nañ ko dañ ko recensé woon lu yàgg ci alquran bi dafa am quarante bërëb ci alquran bo am lu mel ni waaye mënuñu woon defar en tant que concours bi jeexul parce que temps boobu day am ñu ci njëriñoo ñu fekk ni passé nanu euh, amuñu chance njëriñoo ci dafa am famanu turra bu nekk baqara ak maidati al an'ami wa nahl walakin unzur fi l araf qaala tuxruj fi yusuf fatilan unzur بأس بعض ننظر متشابه ننظر محظور ننظر مسحور ننظر إسراء الأعراف برحمة ندخلوها ادخلوا وعيون ندخلوا مبين نقتلوا خبيثة نجتثت وعذاب نركض مبين ندخلوها أن اقتلوا أن احكم أن اعبدوا الله كمائدة والنحل والمؤمنون والنمل ونوح anushkuru lillah anushkuru li anubuduuni wa anubuduuni anughdu aw ukhruju aw udcu rahmana aw unqus walaqad ustuhzia racdi lancaami lambiya qul udcuu shurakaakum qul udcuu allaha qul unduruu maada fi samaawaati qul udcuu alladina israa saba dafa am tanwin yi yu am tanwin yi douze lañu ñu ànd ak xul cinq lañu yu ànd faman kat lañu yu ànd aw trois lañu yu ànd ak walaqad trois lañu yu ànd ak kiin benn la qaalat benn la yii yépp soo taxawee bu ci xarfu bu jiitu hamzatu wasli bi hamzatu wasli bi ngay commencé amul warshi amul xafs fu ñu wuute rek mooy soo nekkee taxawu dangay wax foofu la ñu wuute ñuy wax a nuqutulu ñi ñu ne a niqutulu waaye soo taxawee ci an bi u kese ngay wax u amul beneen yi quarante la à part quarante yi hamzatu wasli boo gis bu àndul ak laam commencé ko kasra bul hésité beneen bi ñu bëggoon wax suñu xale yi puisque souvent xale yi dañ cee am ay accident yu garaaw ci concours international yi dafa am ku def kaamilu qaaluun ci suuratul ahqaaf mu def erreur boobu erreur bi mooy am lahum shirkum fi samawaat bi moo continuer parce que foofu mën nañ fa taxaw mu ne ituuni mu jàng ñaari hamza soo taxawee ci soo commencé ci hamzatu wasli bi amul warsh amul xafs amul qaaluun amul duuri ñépp duñu jàng hamza bu am sukun bi dañ koy defaat yaa fu ñuy wute mooy su nekkee ne ci waslu lañu nekk waaye suñu taxawee loolu quatorze place ci alquran la bu njëkk bi wa qaala firawnu tuuni bu suuratu yunus soo taxawee ci firawn wa qaala firawn dangay wax iituuni doo jàng hamza bi defaat dangay defaat hamza bi yaa xafs ak warsh ak duuri ñépp ñoo ci yem amul différence soo commencé ci hamzatu wasl bi summa tu saffan soo taxawee soo taxawee ci summa da ngay wax iituuni xafs warsh duuri qaaluun bazzi yépp ñoo ci yem fa qaala laha walil arditiya bu fussilat alsamawatiituuni bu laxqaafi alhudaatina bu lanacaami wa qaala almalikuutuuni bihi bu yuusuf liqaanaati bu yunus qaala tuuni bi axin lakum bu yuusuf qaalu tuu bi aabaa'ina bu jaasiya aniiti alqawma alzaalimiina bu shu'araa awiitina bi azaabin aliim bu lanfaali yaa saalixuutina bimaa taciduna bu laraaf bu laraaf wa minhum man yaquuluuda lii bu tawba fal yuaddi alladi tumina amaanatahu boobu kese ngay commencé damma dangay wax fal yuaddi alladi soo commencé nga di uutumina yu des yëpp kasara ngay commencé waaye ñoom ñëpp doo jàng hamza bi soo commencé ci hamzatu wasli bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu.